ku ëmbal nit ñi yërmande muy woote bu Cheikh Mouhamadul taxa lu mu woote bisub xasida fan la ko wootee ci weeru muharram xëy na toll ci benn fan wala ñaari fan ba fan la ko wootee Touba li tax ma ne woote bu am solo la mooy fi mu ko woote ci weer yi di muharram nga xam ne mooy njëlbeenu at mi bokk ci al ashurul xurum al ashurul xurum mooy weer yi nga xam ne loo ci jaamu yàlla suñu borom bi tabaraka wa taala fulal la ko yàlla wax na ci alquran nee na inna iddata shuhuri inda allahi isna asara sahran fi kitaabillah yowma xalaqa alsamawati wal arda minha arbaatun xurumun dalika addiinu alxayimu fala taslimu fihinna anfusakum wa xaatilu almushrikina kaafatan kama yuxaatiluunakum kaafa waalamu anna allaha maa almuttaqin weer wi kon dafa bokk ci weer yi nga xam ne lu ci way jëf suñu borom fulal la ko ba yàlla wax ne sax ne kon na ngeen ko warmaal te bañ cee tooñante moo tax sëriñ bi woote ci lim ci wootee muy dellu ci suñu borom tabaaraka wa taala ba tax ñu mën a am li yàlla li sëriñ Tuubaa wax ci téereem bi di xat fakka kabla xat basta fadla fa durru wala wa nafu jaay lii ñu tënk jënguñu mu tënkee ko suñu borom sotti ngëneelam waaye lor ji fi nekk wane ginnaaw njariñ daal di ñëw loolu la woote loolu nag mu woote ko ci barab bu tam bu am xorma muy barabu Tuubaa bii nga xam ne sëriñ bi waxoon na ne waccaxal xarimaha xariman amina wa kun bi xefsihi kafilan damina na nga ko def muy barab boo xam ne bu am orma la barab bu am orma nag mooy barab boo xam ne loo fa jaamu yàlla yi tamit suñ waroon ful ko kon woote na ci weer woo xam ne loo ci jaamu yàlla mu ful ko woote ci barab boo xam ne loo ci jaamu yàlla mu ko woote nag it ñu jàngaat loo xam ne de lu dul alquran ak laa loolaa gënal suñu borom tabaraka wa taala muy xasida suñu borom xasida Seexul Xadiim yi nga xam ne lu ci waay ñaan tawasul mu am ko kon bokk nañu xam ne wala si nastajaaboo li rabbihim wa aqaamu salaata wa amruhum suura baynahum wa mimma rasaqnahum xool képp koo xam ne wuy si nga ngir yàlla te bi nga dikkee nga fàttaliku sa borom ndax taxawal julli gi wéy suur lu may fàttaliku yàlla ndax aximi salaata li zikri jàng xasida gi lépp lépp tawassul rek la ak barkeelu ak dellu gi suñu borom tabaaraka wa taala tey ku ci nekk la nga am nga def ko ci ay bernde ngir yàlla ak jëmmi sëriñ bi ak toroxlu sa borom tabaaraka wa taala su boobaa kon li ñu bëgg lépp danañ ko am kon na ñëpp wu si muy njariñal kese wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.